الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنار لنا طريق الإيمان وهيأ لنا سبيل الإحسان نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق تقواه يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون لقد دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق وحث عليها فدعا إلى المعاملة الحسنة كما دعا إلى كف الأذى وأخبر عليه السلام أن كف الأذى من أفضل خصال الإسلام فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده muttafaqun aley mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mi ñu xéewale diine gii de diine islaam mu leeralal nit yoon bi nga xamante ni ku ci jaar di nga am lii nga xamante ni mooy gëm yàlla bañ lay woowee al mu'min yàlla suñu borom mi ñu tàggatal yombalal ñu ay yoon yoo xamante ni mën nañ ci jaar ngir di rafetal suñu nekkin ñu ngi seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhaanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal ba ba borom bi subhaanahu wa taala di doon mu suufam si mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mu ngi àddu ci alquraanul karim di woo way gëm ñi di leen wax nañ ko ragal dëgg-dëgg ragal ragal yàlla mbokk yi mooy def li yàlla santaane sa kémta lay kattan waaye nga bàyyi lépp lum tere it mu ne loolu de moon ko defee ngeen teg ci di wax wax ju rafet mbokk yi wax ju rafet ki nga xamante ni moo gën a bon ci lu yàlla mës a sàkk ci kaw suuf ginnaaw iblis ndax moom moo ñëwoon taxaw ne ana rabbukumul aala muy firawna keroog bi borom bi subhanahu wa taala di yabal ci moom muusa ak haaruun waxul Moussa ak Haarun ni leen bu ngeen demee rek taxaw leen rek ngeen tàllal seeni loxo ndax ay yonent ngeen ñaan ma rek ma wàccee montagne seen kaw Firawna ak ñoñom dal fay yem déedéet yàlla li mu dénk wala arme bi mu jox Moussa ak Haarun ci ki gën a bon muy Firawna daf ni fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yaddakkar aw yaxsha su ngeen demee ci moom Firawna na ngeen wax ak moom wax ju tey kon jàpp nañ ni ki nga war a jàkkaar lool mu def ak ñaawteef wala lu ñuy tere wala nga gis muy def noo xamante ni amaana dafa xamul nuñ koy defee nee na kooku arme bi nga war a utiliser ci moom ngir jubbanti ko mooy qawlan layyinan wax ju tey ndax mu delluwaat ci njuumte gam defoon yàlla moo ne bu ngeen defee loolu yuslix lakum amalakum dinaa yëwanal seeni mbir ba lu ngeen sëmb mu sotti te duma ca yam wa yaxfir lakum dunubakum dinaa leen jéggal seeni bàkkaar mbokk yi jéggalu bàkkaar nit ki buy dund da kaa soxla bu faatoo da kaa soxla yàlla ñu yàlla jéggal yàlla ni nag képp ku bëgg am loolu googu di njëggal mooy da ngay topp yàlla ak yonenteem moo tax mu ne wa man yuti illaha wa rasulahu sax ca kooku de mooy ki nga xamante ni mooy texe texe gu mag ga ëllëg mooy dugg biir aljanna yàlla ñu ci yàlla defal faqad faaza fawzan azima mbokk yi islam de mooy diine gi nga xamante ni li muy woote mooy ci jikko yu rafet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu laajee suñu yaay Aïcha ni ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jikkoom yi fan la ko jële mu ni ci alquranul karim islam di soññe ci jikko ju rafet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lor gi nga xamante ni jullit bi war na ko bañ a lor mbokki jullitam ñu jële ci xadiisu abu muusa al ashari yàlla na ko yàlla gërëm mu wax ni ñoom de toogoon nañ ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko ñu ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla yi ayul islaami afdal jullit de ana lan la war a def ci loo xamante ne da koy jural ak ngëneel ngir mu mucc mu ni ko mu ni leen man salima mu ni képp koo xamante ni jullit ñi la wër ñépp mucc nañ min lisaanihi ci sa ayuk lam ci sa ayuk loxo min lisaanihi ci sa ayuk làmmiñ sa ayuk làmmiñ mooy doo jëw sa mbokk jullit doo ko ci fental fent moom la ñuy wax fen doo ko ci sosal doo ko ci duural doo ko ci jéebaane ci loo xamante ni suturam la ci moom nga koy wuññi mu ni kooku noonu de mooy ki nga xamante ni jullit ñi mucc nañ ci làmmiñ wa yadihi mu ni leen tamit mooy ki nga xamante ni jullit ñi mucc nañ ci sa ayug loxo mbokk ayug loxo buñ doon doxe misaal mooy masalan nga yor ab mbalit sa biir kër mbalit mooy li nga xamante ni kenn soxlaatu ko maanaam dafa war a génn kër gi li tax muy génn kër gi mooy luy lore la ci biir kër gi ndax lii lore ci biir kër gi da nga koy génn ngir lor nit ñi déedéet waaye am na ay jumtukaay yoo mën a jëfandikoo ci kër gi ba du la lor yow njëkk noppi ca bu dee am nañ foo xamante ni fa lañ ko mën a teg ba du indi ak lor nga dem teg ko fa ci lu dul indi ak lor su dee ne amul fuñ ko teg ngir mu bañ a indi ak lor na nga ko garder sa kër ba jumtukaay bi koy jël ñëw nga génne ko ngir mu bañ a am benn àq buy dox sa digganteeg ñi la wër ndax li ngay génne dafa baaxul ci yow mu ni kon ki nga xamante ni fexe na ba loolu ay loxoom mënoon a jëf ba du dindi ak lor ba du indi ak lor ci penc mi mu ni kooku yow de jullit ñi mucc nañ ci sa ayug lox loxo kon yow jàppal ni yaay ci gën ci ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci jullit ñi di lor sa mbokku jullit ci ni ah kii de ñee naa ko maanaam dama ko li ñuy wax iñaane sax li mu am nga ne dama koy jugal nga dem ñu bindal la ay xarfa xuufa ay loxo koy bind ñu jox la ko nga ni ñu ne la da nga koy suul wala da nga koy gas wala da nga koy nangam wala loxo maa def loo ci jublu ngir lor sa mbokku jullit koo xamante ne li na ci moom yàlla moo ko dogal ci moom loolu ak ay la goo xamante ni mën nga koo jural sa mbokku jullit te mu lay jural loo xamante ni moo lay xaar ëllëg mooy mbugalu borom bi subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane wat ci benn xadis bu abi said alxudri radiallahu anhu mu ni iyaakum wal juluusu fi turuqaat mu ni geneen lor gi nga xamante ne jullit bi mën na koo lor ay mbokki jullitam mën naa juddoo ci mbedd mi mën na juddoo ci mbedd mi moo tax mu ni iyaakum bi maana ihdaru tere naa leen moytandiku leen di toog ci mbedd yi toog ay mbedd fa qaala saxaaba yi fa qaalu ñu ni ko ya rasulallah ma lana budda min majalisina tataxaddatu fiina ñun kat moom daanaka suñu kër yi ay puqus la ay xujuraat la saxaaba yi amoon ay xujuraat koo xam ne daanaka boo fi duggee sax doo sëggi bu baax wala boo tëddee amaana sax say tànk mën naa génn ci biti ay puqus lañ doon tëdd radiallahu anhum boo ko doon natt suñu jamono tey mooy suñu kër yi nga xam te ni këru papa yaay doom la nga indi fa famille boo xamante ni maam jaak ñëpp a ngi ci kër yi xat na dèjà léegi fan lañ mën a am ah xanaa di génn ci biti léeg-léeg di féexlu moo tax saxaaba yi ne ko ah ñun de amuñu lu dul mbedd mi xanaa léeg-léeg di ci génn di waxtaan ak a féexlu mu ñu leen fi ida abaytum illa al majlis bu ngi fekkente ne loolu mun la ñàkk faatu tariqa xaqahu na ngeen jox mbedd mi àqam ba tey xiwaar bii dox ci diggante yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi jeexagul ñu ne ko waa la mooy àqu mbedd mi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen raddul basar na ngeen di wàccee seeni rido maanaam ne leen wàccee seeni xef ci xool loo xamante ne waroo koo xool muy lu xaraam te am xel mbokk yi dafa sob xel kenn mënu koo takk loo xool mu interprété ko bu dee ni yow ni sa ni ne sa biir isa saluha al qalb bu sa xol sellee loo xool lu ne rek lu sell nga ciy xalaat wa isa fasadatil qalb bu xol bi nag tilimee loo xool rek lu tinaaw lay doon diw mii da la muy def nangam loolu bu ko defee mu jural la ay njombitef yoo xamante ni ëllëg mën nañoo dugal bi safar yàlla ci yàlla musal lii waykat bi waxoon walladi nafsuhu bi gayri jamal laa yara fi lwujudi shay'an jamila ki nga xamante ni moom xol ba dafa tilim xel ma la cay xalaat lépp lu ñaaw lay doon lu mu xol lu ñaaw lay doon moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni leen dee leen bu fekkente ni mënu leen ñàkk toog ci mbedd mi na ngeen di wàccee seeni xef ci di xool loo xamante ni mën nga ko interpréter mal mu ni leen ba ca topp mooy wakaful aza de leen mooy ci ndukk lépp luy lor foofu maanaam bu ngeen gisee lenn luy lore ci mbedd mi rek na ngeen ci gaaw jub ngeen dindi ko fa balaa keneen di ci loolu kon kooku noonu tere na koy teg mbalit foo xamante ni ku fa jaar loru ca moo xam ca xedd wala moo xam ca gisin ba sax mbalit gis ko nii rek rafetul rawatina na nga koy xool da ca romb mu lay jural sax ay feebar yoo xamante ne yow bokk nga ci ki sababal kii mu feebar ak lor la mu ni leen wa raddu salaam bu ngeen mun la ñàkk a toog ci mbedd mi dee leen fay nuyoo ñàkk a fay nuyoo dafa bokk ci àq yi nga xamante ni dafay dox ci diggante jullit ak mbokk jullitam mbooloo bu ngeen toogee ci mbedd ñu romb ni asalaamaaleykum bu ca ñenn fayee ñi ci des duñu am bàkkaar ndax am nañu fay waaye bu ñëpp fayoon mooy li gën ndax yàlla ne fa iza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha buñ leen fayee ni as buñ leen nuyoo ni asalaamaaleykum nee na na nga fay fay bu gën nekk wa aleykum salaam wa rahmatullah boo mënee mënee teg wa barakaatuhu nga teg ko ca waaye bu fekkente ni ñii dañoo fay ñee fay ñu ba tey wàcc na ñi ci des duñu am bàkkaar waaye bu ñu rombee ni asalaamaaleykum ñëpp ni këmm nekk ca la ñuy nekk di waxtaan ba dégguñu ko wala ñu dégg fayuñu ko wala ci dañu am ñu koy jàppee ci ab een ba fayuñu ko yoon saa saa ne yéen ñëpp ay am bàkkaar ñi fay ak ñi fayul ñëpp ay am bàkkaar moo tax mu ne bu ngeen mun la ñàkk a toog ci mbedd yi na ngeen di fay nuyu wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ngeen di digle lu baax tey tere lu bon bu fekkee da ngeen toog ci mbedd mi aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk yi ginnaaw bi ñu santeete yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di selmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ba tey di wax ci lor yi nga xamante ni jullit bi da ko war a moytan di ko di ko lor mbokk jullitam ndax ëllëg mën na kaa jural mbugalu borom bi subhanahu wa taala ñu jële ci naafia an ibni amar radiallahu anhum mu wax ni sauda rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafay yëg ci mimbar bi comme ni di waxtaan di wax ak saxaaba yi fa naada bi sawtin rafia bi mu toogee rek mu yëkkati kàddoom mu yëkkati ko ca kaw mu ni leen yaa maachara man aslama bi lisaanihi ay yéen ñi nga xamante ni yéena ni ay jullit ngeen maanaam jébbalu ngeen rek waaye iman duggagul ci seen biir xol al muslim ak mu'min dafa am différence muslim mooy ki jébbalu ni man ab jullit la mu'min na mooy ñi nga xamante yi nga xamante ni moom mooy dund lii akkaanil iman yépp bi mu waxee ak ñoom mu ni leen jullit ñi nga xamante ni dugg nañ ci islaam te iman duggagul seen biir xol yéen lay waxal mu ni leen laa tu'zul muslimin bu leen lor jullit ñi seen mbokk jullit yi ngeen fekk si tey soog a dugg si ci islaam bu leen leen lor wala tuayiruhum bu leen leen ayibal ayib mooy di leen di leen jox ay di leen qualifier leneen loo xamante ni ay qualification yu ñaaw la wala tattabiu awratihim képp ku ngeen ci xamal ci moom loo xamante ni suturaam la bëggul ko ko ko xamal ndax day jur ak wàññi ci moom nee na bu leen ko mucc siiwal kon daa mel suñu jamono jii dafa mel ni nga xam lu ñaaw ci nit subitement nga dal di koy vocal wala nga bind ko wala en tout cas nga transféré ko loolu la ci namm mu ni bu leen xamal kenn koo xamante ni da ngeen gis ci moom ak sikk ngeen koy siiwal fa innahu ndaxte képp koo xamante ni def na loolu yufidhu walaw fi jawfi raxlihi maanaam borom bi subhaanahu wa taala ëllëg mu ne du ëllëg sax borom bi subhaanahu wa taala fii ci àdduna dina la bàyyi ba nga toog foo xamante ni ku fa am cër nga nee na mu wuññi fa sa sutura subhaanallah mu wuññi fa sa sutura ba daanaka boo mun lee tudd faatu rek ngay ñaan dama yàlla rey fi mu nekk ni fii xajatuma fi maanaam dootoo fa xajati lu ko waral ndaxte dangaa fekkoon sa mbokk jullit boo xamante ne yàlla ëmbal na ko suturaam comme ni mu la ëmbalee sa sutura waaye nee na nga xamal ko lee rek nga daal di koy siiwal sa mbokk yi gravité bi ci am mooy ni yow bis boo siiwalee sa mbokk jullit ab ayib jamono ñu ngi ko siiwalee nga wax wax ji bu dee vocal la vocal bi moomatoo ko mi ngi ci àdduna bi ci ka mu egg rek maanaam bàkkaar bi ma ngay gën di yaatu mooy àq ba nga ko amal ma ngay gën di yaatu te jumtukaay yu xarale yii nekk ci àdduna day gën di sophistiqué day gën di yees ñu koy yeesal ba ba àdduna di tukki maanaam bu doon da nga kaa wax deux mille vingt quatre ci lu ñaaw ba ba àdduna di tukki lu ñaaw loolu lay dem rek léegi yowmal qiyaamati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen al muflis ki ñu saisir mooy ki nga xamante ni daal dafa perte bi ko ko laajee mu laajte ni kan mooy ku perte ci yéen ñu ne ko koo xamante ni daal dafa amoon après mu ñàkk kooku mooy ki perte mun leen déedéet al muflis fii na ki nga xamante ne mooy ki ñu saisir ki perte yowmal qiyaamati mooy ki nga xamante ne danaan julli waxtu juróom yépp ba ciy teg ay naati la te ca jàkka ji la ka daan jullee ngir dabu yool ba nekk ci jàkka ji koor da daan woor weeru koor bi bu amulee benn ngànt bay woor ay altineeki alxamis ngir dabu sunna di woor ay yaamul biir weeru olof bu teroo da koy topp ba ci onzième jour ba mu jël douzième jour mu jël treizième jour quatorzième jour quinzième jour maanaam treizième quatorzième quinzième trois jours yëpp da koy woor ngir dabu weer wépp day am yoon ku ko woor noonu la meloon ci koor koor bu musan diggit am xarit ak yëpp da daan woor bu koor musan jeex sax mu teg ci juróom benni fan ngir dabu at mi yépp ni woor na ko yow mu arafa mu woor daal moom dakaran moom saraxe it dara daawul des ci loxoom daan saraxe rek di def ci yoonu yàlla sarax du rek yëkkati alal joxe waaye romb luy lore fii ci mbedd mi muy pax mu ñu gas nga fexe ba ñàkk ko ba kenn du ci loxo rek sarax la romb ab xeer fii ci mbedd mi nga jël ko teg ko ca pegg ba kenn du ci faxastalu sarax la yépp da ka daan def waaye nakate danaan lor ay dëkkandoom ànd ak ñu naan def ci jaamu yàlla yépp ko orgeg yépp danaan lor ay dëkkandoom fuur mbalit mi fu ko neex buy taw sax mu profité ubbi poosam jël ndox mi di di sànni ci mbedd mi daj ci di sànni ci mbedd mi lépp la ka daan def léegi lu xew nee na ñu jël ci ay ay yu baaxam ndax foofu kenn du ko yóbbaale leen lul tuyaaba ak ay sayiaat yu baax yu bon rek moo fa nekk ci alal ñu jël ci yu baax yi di fay ñoom ameloon ak mbokk yi seetlu leen nag ka nga xamante ni moom 2024 la ko waxaloon lu ñu am ñu tasaare booba at nay tukki kooku bu ñu nattee lam ko amel ci ak rek bañ ko xëyee amatul dara lu mu des ci lu baax léegi ay yu baaxam jeexul lu ko dese mooy ay ñaawteef ay sayyi'aat te am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi taxaw amee loon na leen aar ndax nekkul benn nit dong la waxaloon lu ñaaw mu defal ko lu ñaaw léegi ñu jël ci lu sayyi'aat mooy yu ñaaw ya nga xamante ne ñamu amee loon ak ñoom noonu lañ am ñu koy xool lu tolloog ak ba ñu jox ko ci bàkkaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku lu mu dese ñu ne ko ay ñaawteef kese mu ne summa turiqa fi naar wal iyaazu billah ñu daal koy ne tàbbal leen ko biir safara kon mbokk yi ak wolof day wax dafa sew kon kenn ku nekk war naa góorgóorlu liñ naan jub jubal jubanti du slogan dundin la woo xamante ne mu ngi tàmbalee ci kenn ku nekk ci sa bopp nga yow mii borom kër it ngay amal ay réunion ci biir kër tey dama bëgg ñu waxtaan ci mbalit mi ndax am na ay àq yu ci am wax ko li ci nekk lépp ci ay àq wax ko sa njaboot bi ba pare leen ci bàyyi xel nag loolu ak dundin la bu nekkee ci kër gi ba rafet penc mi day jag bu ko defee àdduna bi Sénégal doon dëkk boo xamante ne dëkk bu ñuy roy lay nekk waaye ak dundin la ci kër gi lañ koy tàmbalee ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله